Croisez froid. ngeen jëf mbokk internet seen làmb TV mbokk yi ñu ngi woon mbégte bu baax a baax ak contentement ñu jàkkaarloo ak yéen yi mbokk yi ci beneen numéro waaye ci beneen angle mbokk yi tey nag ñoo ngi Pikine ah bu ñu nee Pikine xel yi day dem si Mouhamed Ndao Tyson mbokk yi bu ñu nee Pikine xel yi day dem si Eumeu Sène waaye mbokk yi bu ñu nee Pikine xel yi day dem si ki nga xamante ni mooy sook ah def nii sook bi mbokk yi tey nag dañ ñëw fii fekk fi ñi nga xamante ni ñoog soq tant enfant la tant xale la ñuy ànd ak sook bokk ak moom ndey bokk ak moom baay du début à la fin bonheur bànneex mbégte malheur lu am ñu bokk ak Sokh mbokk yi récemment dañ ngeen Sokh keroog euh, combat mag ki nga xamante ni mbokk yi moo doon Marley combat bi jeex par décision d'arbitrage euh, ki nga xamante ni mooy Sokh defoon benn déclaration xamal ni axlu làmba moom Sokh tekki na ngembam ngir lan ngir seetaan bi nga xamante ni ñi mu dëkkal ñoo ngi koy seetaan dañ koy comprendre parce que mbër moom bu tolloo foofu neer yi bu tàngee rek euh, day exprimer wu comme il faut moo tax dañ koy comprendre mbokk yi tey nag dañuy ñëw seet ki nga xamante ni mooy es es bu sook ku xam es bu sook xam ni lépp lu sook dugg suba ba jënd soo dañ koy seen sa wet ja boo ko seenu sa ndeyjoor di nga ko seen si càmmoñ bi euh, moo ki nga xamante ni mooy Zack mbokk yi tey nag ñu ñëw fa seen siq ñu waxtaan sook daa bàyyi làmba wala bàyyiwul làmba loolu yëpp mbokk yi si biir émission bi lay leer waaye tey nag euh, ku nekk xam ne réew mi xale yi xawoon nañ tiit mag ñi xawoon nañ tiit muy problème mu Ousmane ko ak ki nga xamante ni moo doon aji saar wala mbay mbay Mbaye Niang xam nu mu tudd ministère boobu ma mbay ñaa yàlla suñu borom si mbaaxam def na ni euh, problème boobu antuwul problème bu jaay jàppoon xeex ak xuloo yooyu yëpp yaakaar na antuwul mbokk yi moo waral projet boobu dañ ko renvoyé euh, jusqu'au nouvel ordre yàlla bu mu jur lenn coow yàlla bu mu jur leen ne problème ndaxte Ousmane Sonko ak Macky Sall yëpp ay doomu réew mi nañ entre parenthèse loon yi damay nuyu es bu soq mbokk yi waxtaan ak moom di début sook à la fin ba fu sook toll ñoom ñaar seen diggante si lan la basé wu ñoom ñaar seen diggante si lan la tàmbale waaye sook bu mu defee déclaration bi waxtaan si nag ñoom avant mu koy def am déet loolu yëpp mbokk si biir émission bi day leer dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu yéen ak moom es maa ngi lay nuyu di la ziar. maa di nuyu mbokk internet yi. di nuyu Sénégal ñëpp di nuyu waa Pikine waa ginnaaw raay Pikine ba ginnaaw raay tali bu bees rue dix i ko taaf ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant waaw. jag naa la. sant naa bu baax di nuyu Pikine du nuy àdduna du nuyu ñëpp di nuyu soq di nuyu ku ma nuyu rek damaa juum am na solo mi ngi noonu mbokk yi yaakaar naa tey es nag euh, yaakaar naa suñu daje fii lenn kese la muy lancer appel wala lancer message euh, ki nga xamante ni mooy seen leader euh, di Sokh ginnaaw bu mu defee discours am boobu xamal ni axlu làmb moom bàyyi na làmb en tant que jege jegeñaaleem waaye en tant que frère am rawatina ku koy sotti galaaj ban leeral nga ñu mën defal si loolu yan éclaircissement nga ñu mën jox rawatina internet yi nga xamante ni ñu ngi jàkkaarloo. waaw leeral bi ma mën a jox mooy sook di leen wax ni Sokh moom xale la. mu ngi ci làmb ji bàyyiwul déclaration boobu noonu mu def day dal ku nekk day dal ku nekk rawatina nga nekk xale nekk sport sport ku nekk xam na nu mu mel des boo ci nekkee mën nga tol moo xam sa am day tàng loolu kese la. mais bu muy def déclaration boobu nekkuloon li nga xamante ni prévenir na ko avant loolu. non non prévenir ko non loolu kan moo koy def soog xale la. Mhm. kenn du dem si bés naan ay damay bàyyi làmb ak affaire moom loolu mos si waxtaan mos si mos ko sax café non no non yaram bi moo tàng rek moo tax mu demee noonu mhm. mais loolu mooy loolu ñu ni dee ànd ak moom loolu dara xam nañ ne mooy loolu mhm. soq bàyyiwul mhm. pour ñu ñi dalal seen xel soq amul lu làmb waaw amul lu làmb la ñuy taxaw parce que defoon na fi discours euh, ni moom soq liggéeyam lenn kese la muy làmba làmb la amul leneen tey ñu ñëwaat gis mu defaat beneen discours bii lan la est amul beneen genre conflit entre moom ak ñi fi nekk waaw wala déet lan la parce que déclaration boobu mbër bu jugee rek def ko y a quelque chose. conflit entre moom ak ñi fi nekk. ñan ñoo fi nekk. tudd tur nag parce que nee na seetaan bi dafa bëri loolu la gars yi wax. seetaan. ku wax loolu rek da nga xamul li ngay kenn seetaanu ko waaw ñi mu daan déggool di ànd ak ñoom si combat ñooñu ba tey mi ngi déggoog ñoom di ànd ak ñoom Pikine ñëpp la laa cat ba cat waaw amul non non loolu xanaa sax sox moom bu dee nit la sax loolu même bu doon dëgg la sax du réagir ni loolu warul tax mu réagir ni loolu amul loolu amul ñun gisuñu loolu de. wala mais nekkul yaakaar naa làmb ji si yaakaaroon wala yaakaaroon ni gars yi ñu koy waroon daan dara si daan ko daraat est-ce que nekkul làmb ji mu leen gisulee te yaakaar naa bu ma juumul Père Dégol ñëw na bu ma juumul boo Niang ñëw na bu ma juumul waa Pikine ñëpp gën a topp si ginnaawam mais déclaration bi jaaxal ñu bëri. ah peut-être kon moom euh, ñu bàyyi bu mu bu bu bu tanee ay euh, parce que instant bii nii dafa fa blessé dafa am blessure. moom sox waaw kañ ba léegi. da ko doon indi da ko indi stade wala euh, li ko dal si. waaw da doon sooxaale durant préparation làmb ji mais veille combat bi la quoi la ko gën a kii quoi. Mm-hmm. mais après si biir làmb ji mu gaañuwaat foofu. Mm-hmm. waaw bi làmb ji desee deux jours xaw ma euh, trois jours. Mm-hmm. si la si njëkk a gaañu. entraînement. mais après bi mu bëree waatee ba pare noonu. bi mu bëre. mi ngi ko mi ngi mi ngi blessé waat après mi ngi ko bëréwaale lamb ji jeexee nag ñun si lañ koy doog a remarqué ba jusqu'à présent nii. kon yëgu ko woon. Hmm? kon yëgu ko woon yow mii ak ñu ngi ko jógee nii yëgu woon ni soo ko defa blessé. déggoo ma ne la lamb ji desee kii nu mu tudd trois jours. la la blessé laa la wax. la blessé waat entraînement. ah. mais moom si nekk jàmbaaram quoi kamfule na ko. Mhm. mais bu fekkente ne yow jege nga xam nga nit di nga xam ne kii. Mhm. am na lu muy sooxaale quoi. waaw que ñun xamante nañ ci nu biir. di nga xam ne kii am na lu muy sooxaale mais moom mu ngi ñu koy mu ñu koy nëb mu ñu koy euh, kii suñ ko see laaj suñ ko laajee ni waaw manifesté wu ko voilà mais boo dawalee sa sixième séance di nga xam ne yaa quelque chose quoi mais nit tamit du nekk di waaj combat combat bi des deux jours trois jours nga topp tamit chaque instant nga koy dugal yenn kii te mu nekk si te mu jël décision dem bëri ji. bañ ko bouleversé voilà. mais tamit est-ce que loolu nekkul di risque parce que bëri na ay champion yu mag yi nga xamante ni da ngeen di gis ñuy sooxaaleeg lii di blessure bu ñu demee bëri dañ siy am ay déception est-ce que soq fi nga xamante ni yenn affaire yi yenn malheur bu ko dalee est-ce que jotul pour ngeen recadrer ko yéen ñi nga loolu bu nekkoon tey jii nii malheur bu mu mënul résister comme tey moom moom doom am sax euh, benn xelu dem di bëri ji noonu. Mm-hmm. mais garaawul ba làmb moom góor la nit yàgg na di blessé dem bëre daan sama sax nga gis mbër bëre daan ñun daf man sama lii dama doon bëre waaree lii. Mhm. noonu la rek dama doon bëre laalee lii moom. Mhm. booy dem di bëre ji mën nga bëre ji waale ak victoire nga daan ak victoire kenn du si bàyyi xel. Mhm. nga yooyaay toog nga wax ko quoi nga daan mais tey jii nii comme jëlee na si match nul tamit alhamdulilah quoi. comme daanuñu ko si alhamdulilah. moom yàlla def na moom ba mu mun ko dem registré dem bëre ji am problème parce que tey jii bëre léegi rek lañ ko commencé professionnaliser bëre tamit yàgg nit yàgg na di di di di gaañu ay di dem di bëre waaw. yaakaar naa combat bi nga xamante ni combat revanche la woon diggante Pikine ak Guédiawaye mu nekkoon derby parce que le premier janvier ngeen jógee foofu arène nationale tey ngeen amoon Marley le 14 janvier est du nekkul lu soq yaakaaroon ni la lay fekk si gan bi la fa fekkul. lu mu yaakaaroon lay fekk si gànn lu mel noonu. maanaam dafa jàpp ni moo ko ëpp doole comme ni mu waxoon seen ñaari yaram bu ñu laalante mu yóbbu ko top 5 non loolu moom waxu mbër la rek soq tey jii nii ba mu jëlee combat bi la jaar ni dem Gambie lalu foofu di entraîner di yëg diin di dem ci saali di contact dans quatre mois xaw trois mois def na ko foofu Gambie su ma juumul di entraîner. ñun ñi sax ñu jotoon ko téléphone problème la ñun ki mun àndaloon rek ngay mën a dégganteel téléphone préparé combat bi fii tamit teggiwul tànkam même chose kon xam nga ni kon na adversaire bi respecté na marre waaw kon nag ah mënul am xalaat boobu quoi pour yaakaar naa mi ngi si làmb ak léegi mi ngi si làmb euh, ba nit wax ak mi ngi si làmb tey yan adversaire nga jàpp ni sa mbër war na mën a bëri ñoom. guy gi mën nañ bëre moom. guy gi man. a est bal yi nga def. mais guy gi pourquoi pas mënuñu na bëgg a bëre guy gi. ah mais. làmb la de. du ko tàng na de. làmb bañul lool de parce que làmb instant bii nii. ñoom bu ñu mayantewul chance. làmb du ubbeeku. mais guy gi mii ma gis nii dafa mer de. ah mais soq instant bii nii làmb ci mel noonu la war a am làmb boo xamante ni moom tey jii xam nga guy guy gi mag bu mer la. Hmm. mag bu mer nag ak xale bu mer day neex. mais sama xale bu xale bu meree gis mag bu mees du du rocceeku jéem a xool leneen lu mu def parce que xale mun nax maanaam moromu maamam moo moo gën a yomb mu nax moromu nijaayam. non no non làmb làmb soq kii du am ñëw jaayante doole la. attention est waxtaan est bu soq nekk sa mbër. xam nga ba nga jàpp ni instant guy gi moom sa waay mooy loolu te guy gi mi ma gis ni dafa daas fanaan guy gi instant yi xoolatu ay yenn genre booy man de soq aw ma lenn lu ma koy moytuloo si guy bu avance am ñëwoon tay tay tay tay nga jël ko. ak nu mu nekkee nii si blessure da koy jël. ba dañ fanaan ak moom. neex la amateur yi ñëpp a koy wax. Sokh Gouye Gui combat la. pourquoi pas mënuñu bëre. nga dugg sa baaraam tàng na de. a ah, mais tamit nag Sokh yow ba mu ñëwee ba léegi. Hmm. ah Sokh li ngay dégg sook sook sook yëpp. ay moromam rek la bëre. te Sokh tamit mënul jeexal morom yi nekk si làmb ji yëpp. bu koy laaj de. ban booy la mu yi soxor lool. ban booy la. doomu waalo mais waalo waalo dëgg géej waay bëri na de. Jackson. Jackson waaw. Ah, joxoñ na baaraamu tuuma sookari ne nañ ñëw ñu bëri. ah Jackson champion la gis nañ ko mi ngi def ay performance hmm. mais tamit na xaar quoi na mën na bëre dégg ñoom Mor Kankang. mais Jackson ñàkk jëriñ la daan Jackson instant kay mi si mi si la daan waaw mais ñàkk hmm. jëriñ nga daan ñàkk jëriñu rek ñëw da ngay bëre ak Sokh. Hmm. non non kon teel na. xanaa xoolal qualité bi bëri Jackson Sokh loolu làmb sa xalaatu ko. Jackson bu bëggee làmb bu neex ñoom Boy Zil ñu ngi fi nañoo jël leen bëre ak ñoom. waaw bàyyil sa yi ngay def nga naan ay Boy Zil. Ah, Boy Zil yow saa yi bàyyil sa ñu bëri ñoom ñaar parce que ay xale nañ. mais mais Boy Zil boo kii Jackson daa mën a bañ Boy Zil. bien sûr. ah bokkuñu catégorie sax. bokkuñu catégorie. li ñuy waxtaanee làmb rek. Boy Boy Zil ci ay la toog. mais Jackson ñu mais adversaire yi bokkul. li ñuy waxtaanee làmb quoi. en ñun tey jii duñ jël suñu bët teg ko ci euh, guy gi di ñëw di bëri di may chance ay Jackson. kon daal guy ngeen gis budul guy kenn ngeen gis. ñëw ba léegi ay moroom rek la may lay lay bëreel. te mënul jeexal tamit moroom yu nekk si làmb ji yëpp. Mhm. loolu dafay bëri. léegi budul guy ko leen gisee. budul guy gi mhm. kii mi ngi fi euh, Zarko. Zarko wala Zos. fi tànk bii. est jaaxal nga ma. moo tol noonu nag sox nag moom mbokkut ak moroom booy yi ngay wax de. sook Zarko. sox yi nekk fi yëpp moo leen gën a cher. man kay laa koy bu ñu bu man kay man instant yii maa ngi seen ginnaaw rek. man moom mais loolu la soq zos lamb la làmb. gënu ko moom Zarko la wax Zarko. soq ak Zarko mbaam bi loolu làmb la. Zarko ñu fi daan xam nga ko. te ay mborom soq lañ. loolu làmb da leen boole ñoom ñaar. mais làmb bu ñu ko jëlee teg ko fenn rek du dem. Mm-hmm. waaw ñoom ñaar làmb la moog zos làmb la. moo keneen ak keneen làmb la. waaw kon daal bu ñu euh, nga xamante ni mooy guy kase. non non non guy kase parce nekkul si làmb. Mm. guy kase nekkul si làmb ñu nekk si làmb bëri nañ. Mm. mais boo boolee soq ak zos. Mm. làmb jooju làmb gënu kaa riche. Ah, gënu kaa neex waaw. zos mi ma dafa dellusiwaat. non. fu ko non jaar rek la ko soq di jaaraat mu jeex. fu ko kii ama. loolu ama mooy soq. ama waaw kay. Mm. mais kaddu yi nga xamante ni est jot jot na ko yëkkati jëmale ko seen seen bër am ñi nga xamante ni dañ naan soq entraînement bu war ci moom defagu ko ci làmb tey loolu loo ci wax. lu ma ciy wax c'est que star rek ak mbër a sonn mm-hmm. soq ba mu jëlee avance man mii nii laa ko gëj gis mm-hmm. pour ma dégg ko sax problème la mm-hmm. whatsapp sax bu ñu nekk si pour ñu wax si maak moom problème la boobu ba léegi la dem toog dëkkuñu Gàmbi nekk si ay loxo yu wóor toog di liggéey di nekk chaque jour di liggéey di liggéey amaana nag yàlla lu muy bind dafay bind démb tey soog a ñëw waaw moom bu soño bu xamoon ni suba nii lay demee du mel noonu mais ba muy ñëw victoire la indaale confiance ku wax ak moom suñu mun la làmb jeex na ah, ah, jour ji lay xaar moo tax ba leen yàlla mayee lii nii mu nekk xamu la après moom da si sant yàlla bu baax xëy na ba muy wax am na lu ko metti foogee ko woon foofu yàlla danaa la lii ba nga foog ne loolu la mu fel loolu après yow sa dernier xalaat da ngay am lu la metti découragé mais bàyyi naa làmb boobu noonu moom mun na ko wax mu yem si moom mais ñun ñi di ko topp dégguñu sax wax jooju noonu wax jooju noonu maa ngi koy doog a déggaat tey yow mu mi ngi noonu yaakaar naa mbokk yi tey nag lii leen leen indiloon yaakaar naa bu ñu toppee waxtaan bi mënuñu fi jóge te ku nekk xam ne ni émission euh, temps la kàddu gi mi ngi may moom 15 minutes jotee rek mënu ma tàllal ma ñaari loxo yi mais mi ngi noonu tey mbokk yi lépp lu ñu fi wax lu nekk rek jàpp leen ni mbaaxu suñu borom la waaye lépp lu ñu fi wax mu débordé jàpp leen suñu mat di la ndax kii di es wala kii di Jacques ak man mi tey micro bi dañu bëggoon lépp neex ndax làmb moo ñu ñor mbër bu mën a soq produit la mbokk yi mbër mu mën a soq ndaanaan la mbër bu mën a soq daan na fi ku ne mbër bu mën a soq dugg na kalaaf daan ay moromam daan ñu gënoon tësi kalaaf bi ñu waxoon ni ku si jàpp soq tey mu dee mu daan leen ku si mel ni tant d'autres tant d'autres du ma lim mais dafa nekk mbër bi nga xamante ni jot na Pikine dellowaat ko cër bu mu moom jot na làmba joxaat ko gëddëm te xam ni champion la ñoo ngi koy encouragé moom bu baax a baax a baax moom soog te di wax frère comme ni ma waxoon maag làmbaloog takkaatal say dàll yokk entraînement yi yokk jaaj te xam da bokk ci làmba l'avenir devant toi bul yàkkam di dara xale bu ndaw nga damay jox es mbokk yi mu tàggatoo ak yéen ñu tàggatoo ba demee si beneen numéro ñu waxtaanee ko es looy tàggatoo. waaw Serigne li mooy. di la sant di rafetlu teewaay bi nga teew fii ñëw jël sima tey ñu def émission di nuyu waa Pikine yëpp di sant waa Pikine di nuyu mafia soq bi yëpp waaw di ko commencé suñu nijaay Jibi Joola si Nicolas Moustapha Mo Tala Demba Diaga euh, Moussa Ndiaye suñu grand Malick suñu grand Malick ku baax la moom day sonn ci mu saa Niass moom tamit day sonn ci Sokh di leen gërëm ñoom ñëpp waaw ay laay gay sama copain ay bas ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax gars yi mooy loolu Sokh bàyyiwul musul bàyyi mu ngi si làmb waaw. di la wax rek kon lu Sokh wax amaana Sokh wax na pare pour ñu waxaat sax tuuti lay doon rek di siyaar ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam kon nu mu ko waxee rek moom parewul sax pour bàyyi ndax moomul boppam daa am si lu mu dugg si loo xam ni da say dugg pare nit ñi gën ko kaa bëgg di ko ñaanal yàlla nag jàmm ak salaam di ka ñaanal si lii mu jógee bu amaatee combat yàlla na si am victoire bu leer nañ di ñaanal pikin bi yëpp te xamal ne pikin bi yëpp benn la waaw. jërëjëf mi ngi noonu Awa Diop bu Balla Gaye 2 borom Touba nuyu naa bu baax a baax nuyu naa Doudou Ndaw sama waa ji borom Morok di leen kontaanee mbokk yi di leen joxaat dig daje beneen yoon si beneen numéro ñu waxtaanee ko man ak Alioune du la woon ak S ak Jack mbokk yi beneen ñu waxtaanee ko seen lamb TV c'est le bégé jaa jëf.